xalif général des Tidianes sëriñ Babacar Sy Mansour mi ngi invité sénégalais yëpp ci jëf ji mu sant ma ma wuutu ko ci defal ko ko mooy ñaqam ak alalam des fi ci lu bees li mu dugg ci kees gi sëriñ Babacar Sy Mouhamadul Mansour alxalifatu alaam li taifati tijaniya mi ngi invité sénégalais yëpp di leen wuutu ci barab bi nga xam ni barabu réew mi la vitrinu réew mi la vitrinu diine ji la vitrinu mbokk gi la vitrinu société bi la vitrine koom-koomu réew mi la ci lu koy dolli mi ngi jël lii di ci jënd lii di ci invité sénégalais yëpp te di leen ci wuutu lii yar na jur barke ci barab bi inchaa allahu taala ci barke maamam Cheikh Seydil Hadji Malick Sy radiallahu anhu ci barke yonent bi donte doomi soxna nga bi nga dikkee bëgg nga barab bi yokk ndax bi nga dikkee xaaroo duñ la jox da ngaa génn ci saw ñax ngir ne ñu jiitu ci barab bi ngir barki gi mën cee topp loolu lan la ci sénégalais yi war a jàngee gën a jàppale EDK te xam ne mooy njëriñu réew mi si Malick asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu ñoo ngi nuyu sunu kilifa diine yi di leen ziyaara di leen ndokkeel te di ñaan yàlla sunu borom tabaaraka wa ñun ñu néew doole yii moom mi jagoo boppam te mënal boppam lépp te kenn fekk ko ci boppam yàlla na yàlla jël sunu kilifa yi dugal leen ci boppam lu tax kuñ ni waaw góor na nga ña ca jàpp ba mu mel ni mu war a mel kuñ ni waaw góor gesul ña ca jàpp ndax bari nañu acteur mel xam nga ko ko ko tax a mel réalisateur bi te feeñul ci film bi kuñ ni danga baax seetal ñamel nañu war a mel te def la ni nga mel mm. seetal ña nañu war a mel te def la ni nga mel kon ñi ngi sant sëriñ Muntaqa di sant sunu baay alxaji Maaxi Siise di sant sëriñ Babacar Si Mansour al ak mbooleem xulafaa u yi fi nekk te téyel yàlla njabootam gi ndax alxalqu kulluhum ayaalullahi sunu boroom tabaaraka wa bi muy waajal aadama ak njabootam xawaa dafa fekk dafa fexe ba defar aljana ak lu fa nit war a soxla xam ni nit daf ko mooñaaleeg mar te ku mar soxla nga naan daf ko mooñaaleeg xiif te kuy xiif soxla nga lekk daf ko mooñaaleeg coono te kuy sonn soxla nga dallu yàlla defar aljanna ba noppi def fa lam fa war a def ne aadama yàgg sa njaboot ànd leen kër gaa ngi kon xam na ni nit dafay soxla fu mu fu mu dëkk mu waajal kër gi mu leen bu ngeen duggee nag fakulaa min ha ragadan ragadan ku la ko wax ci teraanga mooy bu ca boppam mënoon a bokk sax mu bokk ca xaytu chituma fu mu leen fi neexee rek dog leen wax nag ne bu ngeen demee ba regg nag attention bu seen loxo laal lii wala taqraba hadihi shajara ndax bu garab ga neexoon ñu dugg fa amuñu lu lekk amuñu lu ñu naan kon danañu xemmeem garab bi moo tax ku xiif te bari xam-xam kenn du ko laaj xalaat ku réere boppam te am koom-koom kenn du ko laaj xalaat ki xiif te bari xam-xam am na leneen lu yitteem lu dul xalaat da fexe ba mu regg waaw bu reggee booy waxtaan ak moom la bu xelam ubbeekoo la nga bëgg a dégg la lay wax ki réere boppam te te am am dab ko booy wax ak moom la mu am la lay wan du la dégg da fexe ba mu xam boppam booy waxtaan ak moom mu fàtte la mu am teewal sa bopp mu xam ne goroy wax ak moom ñoo ngi sant alxaaji Demba Ka yal na yàlla dolli ko sutura yal na yàlla dolli ko jàmm dafa am lu bees lu xew fii dafa am fu ñuy wax manoor manoor moo amee équivalence su champs ci Genève loo bari bari xam-xam ak foo mën a jànge boo fa xasee ba dugg xoolatuñu yow la nga fa indi ñoom nañu bëgg nga mel ko ci lañ lay tënk ba nga nekk produit manoor loolu dem ba daf ko dolliwaat fii moo jur kii waaye daf ko ni jibi nee na Mamour moo ko njëkk a utal liggéey ki dem ba jurul moo utal liggéey ki dem ba jur kon wane na ni fii ku fi ñëw dañ lay tëgg pour nga nekk produit EDK mën a siggi ci réew mi ba couleur yi nga sol nga xam ni dafay communiquer lu baree bari foo siggi amul benn institution wala entreprise étrangère booy mën a taxaw di sëgg parce que tëgg nañ la def ci yow xam-xam def ci yow jikko bàyyi loola xel ñi la fiy fekk si ak ñi ngay fekki boo génnee fii moo tax ñu am sañ-sañu mën a jële fii nit yóbbu ko ba Tambacounda te jooyul ay bokkam kon kiñ ko digaaleel am na nu mu mel ñiñ ko seqal am na nu ñu mel lii nag yokkute la ndax am na yu ko jiitu waxuma am na lu ko jiitu dama ni am na yu ko jiitu bu yàlla d'accordul woon yooye mën naa sooxe te incha allah sooxeegul dem nag dafa am bés ma fekk ci moom loo xam ni ku ko fekkewul dañ la koo nettali wala ku mel ni man nettali la ko mën ngeen koo xam xam incha allah ci ñaari barab benn bi barñi la boobu mi ngi doog a commencé indi Nespresso ma jaar fa bi ma ñëwee maa ngi dajeek moom mu yor ay sachet ak benn employé am xale bi mu yoree mi ngi sol costume bu rafet ñu téye sachet bi gunge benn nit ba ci otoom waa ji ubbi maal bi ñoom dem ba dugalal ko sachet yi waa ji génne ñaari téeméeri dërëm 1000 francs ne leen bokk leen ko yéen ñaar Demba ak employé bi bëggoon naa fi fekk seen patron ndax liggéey bu rafet bii mu def comme ça gërëm ko waaye bu ñëwee na ngeen ma ko remercier maa ngi taxaw. ñu pare. a ah, ma topp Demba mu ñëw ba ci kees gi mu jox daam bi 1000 francs bi ne ko wecci ma ko mu wecc ko jox ko ñaari téeméer mu jël benn téeméer def ci poche jël benn téeméer jox employé bi ma ne ko waaw Demba lu waral li mu ne ma moom la ma góor gi sant mhm. fi mu nekk nii damay dem ci restaurant bële pour servir ña fa nekk gis nga yàlla xamul lu nit am nu nit mel la xam ndax loo am moo la ko jox waaye noo melit moo la ko def ma fekkaat ko fii ci lobat faal mu toog ma wàcc nuyu ko fi may wax moom tuuti benn waaye gaare otoom ne ko sëriñ bi jóg leen fi ngeen di toog ci bunt yi ñu ngi bëgg a gaare mënuñu gaare jugal nga randu nale bu leen ñu gêné dem ba jóg xëcc chaise am dem toog maa ko fekk waaw ak yar gi ak yar gi ak préparé bi ko préparé ak yiw gi ak yiw di ko sant di ko ñaanal yàlla bu baax yàlla na ñuy dégg yu mel nii sëriñ Abdoul Aziz si Al Amin yal na yàlla yokk ko leer yal na yàlla yokk ko leer dafa dem ba jëmmi jamono li ko nit ñi daan jox yépp ay projet lay doon mu xayma projet yi te lim ci fekk ci réalisation bariwul mu ni gëmatul projet réalisation la gëm mooy lii sëñ Babacar Mansour ñëw ne man gëmuma wax jëf laa gëm maa def lii wala lii sotti na laa gën a xam ci li may wax demal nga nekk ca moo tax bëri na ku ko ni ñaanal ma ci sama kër gi mun la ko tàmbaleegul nooy amee kër. li yéem ñëpp mooy barabu EDK boo dem fekk fa bërëbu jaamukaay yàlla. waaw te loolu bariwul lu ñu koy gis ci grande surface yi. Mhm. inspiration bi ñëw ci Demba boole ko mode si ak yar gi. Mhm. dafa mel ni mi ngi diine la fi nekkal. loolu la ameel yàlla na xayma li ko yàlla defal te mënu koo jënd bëtam ci la bokk. Stevie Wonder ma nga ca Amérique am na lu ne waaye gisul lu ne ba ci doomam gisu ko kon bu xaalis doon joxe bët mu gis dem baa ngi xool dina xëy romb ku silmaxa mu ngi dox ak tànkam yàlla na jëm kanam dina xëy romb kuy raam mu ngi fanaan ci kër bis bu tijjee buntam di daw dina gis ko fanaan ci biti mu ngi lekk mi ngi naan bis bu ne nit dab ko wala mu fëgg buntam di ko yalwaan te bokkul ci ñooñu boo waxee mu dégg bu génnee romb ku tëx mi ngi tekki làmmiñam di wax bu génnee romb ku lu mi ngi dox ak sagoom bu rombee hôpital principal yëg ni fii ñi fi nekk ñëpp dañu tëdd te tëddul ku yàlla defal loolu jël alalam di ngëm xam-xam du ko maye juddu du ko maye am-am du ko maye alalu yàlla la moo koy roof ku ko neex juddu di jullit nit defu ko boppam dund di jullit nit defu ko boppam dee di jullit nit defu ko boppam ku yàlla defal loolu lépp nampatal la ci leeru rasulullahi nga juddu ci ñu ngénte la ci takk ci jabar ñu may la ko ci te incha allah boo guddee fan boo deewee ñu sang la ci sang la ci rob la ci sëñ bi mën ngaa taxawal dara ba mu sotti ni Auchan tollu ni Loyer Price toll yàlla ne la soxlawu ma waañ soxlawu ma chambre à coucher xam nga lu ma soxla foo may wanee ni man maay sa buur kon dafa teel a comprendre. waaw macha dafa bàyyi xel yàlla. sunu borom tabaaraka wa taala dafa am façon yu bari yuñ koy sante yàlla bu lay jox màngo njóogu mbuub mii di ko daggee Casamance di la ko indil taxamoo xamoo ku ko bay ak fu mu ko jëlee boo maccee xoox bi sànni baa doola nga santoo yàlla dangay ngay màcc jëmbataat ndax bu doon ku macc sànni kon di nga juddu ba dee doo màcc mango waaw kon yàlla na yàlla dolli ko sutura équipe bu EDK yëpp Loya Price yëpp kontaan nañu bu baax café Touba ngi fi Nescafé ngi fi pressé yaa ngi fi produit e kaa ngi fi nuurul laa ngi fi. nuurul man dama simaal dama gis nga nga nga ubbeeku nuurul laa. waaw nuurul laa waaw lillahi nuuru samawati wal ard mathalu nuurihi ka mishkatin fiha misbahun al misbahu fi zujajatin zujaja ka annaha kawkabun durriyun yuqadu min shajaratin mubarakatin laa zaytunatin wala xarbiya yakaadu zaytuha yudiu walaw lam tamsashu naar nuurun ala nuur yahdi llahu bihi man yacha moo tax moo tax ah bi ma laajee produit EDK ma jëlee ko ci nuurullah waaw nuurullah rek laay naan waaw nuurullah nuurullah nuurullah waa ci barke nag ndey jooru Cheikh Seydil Hadji bi tëdd ci réew mi muy alxaaji Thierno Saïdou Nourou waaw yal na yàlla doolu sutura yal na yàlla barkeel ñi fi rot si tey yëpp ay ëmb yu yàlla ëmb la te saaku dugub fuñ ko sëpp boo sippee bu fa tuuru wulit am lu mu fa bàyyi kon yaakaar nañ ni bis bi tey am na lu ñu fi bàyyi kàddu yii nag mi ngi jóge ci xalifa bi ngeen di njabootam di doomam di soppeem di xaritam di waxtandoom ak ñoom Madina mm. fa lillahi alhamdu wa shukru ñoom Njoogu mm. ñoom Demba mm. ak ña aju waaw ah yàlla dogal na na nag a ah, ëtt ñëpp mën nañ ko bokk waaye du ñu ñi bokk ëtt bi yëpp ñoo bokk néeg ku dem ci këru locataire daa xam li ma wax bu bëccëgee ah ëtt bi mën na mën na xumb de waaye bu tëdd jotee daa xam kan ak kanay fanaan kon na ngeen xam ni am ngeen ñu ngeen bokkal ëtt bi waaye fii seen néegu bopp la yéen fii fanaan nag ni ku nekk nag fa muy fanaan moo koy toppatool boppam na fi sutura wàcc yàlla na fi sag sax yàlla na wërsëg bi dolliku yàlla na wér am gudd fan tal fekke bi jaahi rasulillah sallallahu alayhi wasallam xalifa bi kontaan na trop njabootu maam Seydou Alxaaji Malick yëpp sunu baay Alxaaji Malick si Maodo sëñ Babacar si Abdoul Aziz sëñ Mansour ak almarhum sëñ Abdoul Aziz si al amin mi ngi ci biir lii ndax keroog bu tiwaawan ba moo ko taxawee moo ko sëriñ bi ànd ak moom yàlla def ci barke sëriñ Muntaqa di fi yabal njabootam ñu yàgg ko ànd àndin bu rafet Cerno Samassa ñëpp seen loxo ci biir yal na yàlla yëwanal yépp yal na yàlla def ci réew mi jàmm yal na yàlla delloo si xel yi yal na yàlla dajal euh, yi yal yàlla dalal xol yi yal na yàlla dolli sutur bu baax bi jaahi rasul sallallahu alayhi sunu waa kër maam Limaamu Laay yal na leen yàlla fay alxaaji Isa Laay sunu baay bu baax boobu ak rakkam yi topp ci gannaawam yëpp yal na leen yàlla fay ndax kat yéen a ngi ngor. yéen a ngi ngor de. ngor nag mooy muru atu. ngor mooy gunge diine moo koy wodd ba mu rafet. waaw ndax maam Seydul Xaaji Malick bi mu agsee waawan dafa fekk sunu bokki ceddo yu baax ya xam ngor xam deret xam njàmbaar xam fit te ragaluñu daan bàkkoo ñett kàddu kàddu fit ngor kàddu fit ngor maam Seydi El Hadji Malick na ñett yi de d'accord naa ci waaye kàddu kese kese kese dafa rafle nañ ko wodde diisoo fit kese kese kese dafa rafle nañ ko woddee nite ndax mën ngaa am fit sa yaram tàng bëccëg nga taal sa kër baay te bala ngay xam ni taal nga sa kër baay timis dafa jot fanaan ga ngay fanaan biti te ngay xam ni ndekete man kër ga ma taal sama kër baay la moo tax fit nañ ko woddee nite ñu ni ngor mu ni dafa rafle nañ ko woddee diine moo tax bu ñu ko ko woddee diine am lu mu ko sédd am lu mu mayee te ngor di ko bañ kon nag fii na ngeen xam ni yéen ñi fiy liggéey dëkkumaam maam limaamu laay bii sas na leen liggéey bii ku amul ngor doo ko téye ku amul ngor doo ko sàmm ku amul ngor doo ci bàyyi xel sa bopp kon ñun ñëpp nañu bàyyi xel ci jikko jooju wasalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa nangu leen ñaan tawax amin gàtt na waaye ci ñaan gi la bokk. amin amin amin si Malick. sa waajur nga sa bàyyi yàlla nga gudd fan. yàlla nga mucc sagu diine nga waaye sagu yoon bi lu waay bëgg na ko ci fas te na ñaanal alaaji Demba ka yàlla guddal fanam. yàlla yokk ko ndax yokk teem njëriñ la ci réew mi. si Malick yàlla na gudd fan. man nag def askan wi jërëjëf Omar